maa ngi leen di nuyuwaat yéen internet di ñu safo di seetaan ak déglu sa su nek maa di dalal dalalat ci seen rubrique décortique bu soxal série bi di infidèle comme nañ koy baxo di def rek sa su nek di apporter suñu analyse yo xamanté rek buñ ko joxé askan wi rek dinañ ci am jangat bu rafet wala sax kenn ku ne ding ci yek sa bop mu nek série bo xamné rek sa yu dawé rek dañ ci indi wat lo xamanté lu bess la uh, par séquence lañu dal di def li nga xamné moy analyse ñu dooree ko ak ki nga xamante ne mooy amaar Amar euh, liñ ci mun a wax rek mooy nit ku ne rek del moytu di tooñoo koo xam ne rek daf la jàppee nii boppam euh, di rus na la def lenn yu metti wala sax saa yu amee problème rek ñëw confier euh, confier la ko wala sax mu ñëw nettali la ko ngir nga mën koo xelal tey jii nag Amar nag woon nag ki nga xamante ne mooy Bachir ne tey jii jékku woon nga ma donte sax xamutoon ne ba tey ci li yàq digganteem ak Sofia moom la waaye rek duy def nit lu bon euh, kii di euh, Amar nag euh, defendre na boppam tey ji vidéo boobu nag si lay sukkandiku ngir mun a am lépp li nga xamante ne rek bëgg na ko ci Sofia ba tax na rek luñ ci mën a jàngal may jëf ju rafet rek moo jara jii nit parce que ki nga xamante ne dala jàppee ni boppam euh, bëgg ki nga xamante ne euh, yow la yaakaar pour nga mun ko convaincre mu nekk ci moom waaye nga di ko ñaawal di ko def loo xamante ne day éloigné euh, xale bu jigéen bi ci moom bés bu yàlla nangoo bésam rek di nga am lu la métti Bachir nag jamono ji rus na xamatul lan lay def soit day nangu li ko Amar wax wala rek mu daal di ko vilipender li nga xamante ne mooy vidéo boobu kon nañu mooy rek def suñuy àndandoo suñuy xarit yi nga xamante ne dañu jàppee yenn yi nga xamante ne rek ëllëg kenn xamatu moo tax lu waay di def rek na doon lu baax beneen séquence bi nga xam na tamit euh, gis nañ ci euh, lu ñu mën a jàngat euh, mu mel ni ami jug na ngir rek dund dund bu bees waaye tamit nag defaraat àddunaam ginnaaw bi nga xamante ne rek bàyyi na ci yeeyu ñaaw yi nga xamante ne moom la doon nekk waaye nag wax ji nag du foofu ki nga xamante ne tey ji daf ko ñëw ngir takk ko soxna yéen a ko déggandoo am na qualité yoo xamante rek limal na ko ko loolu lay seetlu ci jigéen te aman lu bëri yoo xamante rek wax na ko ami amu ci benn maanaam film bi lañu mëna wax nak yaq na deram eh, china bopam ci loo xamantene amul sens kon nak mu melni eh, pour koku eh, am li nga xamantene bëgg na ko ci mom dina doon lu jafé té su boba amé dina rëccu motax rek fu way nek ak surtout ñun xale jigéen ni ñu daldi di moytandiku rek dund bi bu nexé ñu faté né ëlëk amna su boba leneen lu baax bu ñëwé rek te gisul li nga xamantene loolu la bëgg ci ñu rek ñuy jural jafé jafé té goor ñu dofuñ toujours ñu ngi sét ñu baax ñi donte sax dañuy leen di di tooñ souvent ne euh, jigéen yi jigéen nu mu man rek góor moo tax mu mel noonu waaye bu tànn jotee ngir jabar ñoom dañuy seet ñi nga xamante ne euh, qualité jigéen yëpp ñu ngi ci moom kon nag nañu bàyyi xel ci lépp loo xam ne dañ koy def rek ndax ëllëgee euh, bu ñu gisee nit wala ku ñu tasee rek du ñu sëgg beneen séquence bi nekk loo xamante ne diggante ñaari xarit di Anta ak Joséphine dara gënu metti ngeen nekk ay xarit daal di bokk kenn koo xamante ne moom ngeen bëgg faw rek am kenn koo xam ne mooy remporter victoire bi te jamono ji kii nga xamante ne mooy Joséphine mi ngi déglu euh, Anta ci wax yi nga xamante ne mi ngi koy wax waaye xelam mi ngi ci euh, tumaani te tumaani nag dafa mel ni dafay nëbbatu ndax vérité bi wax ko ki nga xam ne mooy Joséphine ndax Joséphine à vrai dire bëgg na ko waaye kii di tumaani nag dafa mel ni euh, Anta la gën a àndal parce que da koy nax day ñëw wax Joséphine loo xamante ne nekkul da koy nax te Anta nag elle prête pour récupérer ki nga xamante ne mooy tumaani donte kii di Joséphine mu ngi am tuuti Eh, xalaat naan tey jii moom moo ko war a jël lii nag lu muy firnde rek mooy ah, xaritoo boo xamante ne rek du jeexee foo xamante ne xalaat nañ ko ndax góor moo leen di séparé góor mooy war a indi tey ci euh, vengeance ci ñoom ñaar mu nekk loo xamante ne rek euh, tey jii kii di tumaani moo waroon def euh, part de vérité bi toog ak ñoom ñaar tànn ki nga xamante ne moom la bëgg laataa seen diggante ñoom ñaar di daal di yàqu kon nag mu nekk loo xamante ne nañ koy jàngat ànd neex na lool waaye bu fekkee ne da ngeen bëgg li ngeen xam ne la faw kenn rek am ko koo xamante ne moom mooy rapporter euh, victoire bi euh, beneen euh, kii ñu gis beneen séquence boo xamante ne foo dem ci administration constat boobu la ñëpp di am tey jii bari na fii ci Sénégal ñoo xamante ne bu sa nekkee directeur wala directrice bu benn entreprise boo fay dem da nga yóbbu benn indiscipline di won nit ñi ñi fa nekk ñi nga xamante ne moom lañ teg ci accueil bi won leen fii sama mag la te loola kenn ku ne war nga ci bàyyi sa xel ndax sa mag bi moom nekk entreprise directrice wala directeur tey jii yàlla mën na ko faa jóge wala ña ñi nga xamante ne moom nga fekk ci accueil bi ñu wala recevoir comme ni ñu yoon ni mu ko waxee ku ñëw balaa ngay jot directeur faw nga wootee euh, ñu laajte la ba pare ñooñee tey ji yàlla mën na def euh, ba ñoom ñu nekk ay directrice wala ay directeur te su boobaatee ji yow mi nga xamante ne da nga ñëw yóbbu leen naka su du noonu wan leen ne sama mag moo fi nekk ëllëg mun na am ñu jiite fenn te boo ñëwee bu ñu la defee noonu euh, kon su boobaa du neex mu nekk loo xamante ne nañu bàyyi xel administration du loo xamante ne rek da ngay ñëw rek def mais dafa nek cadre bo xamantene le respect dafa réciproque fofu non bo fekkee ay nit même bu fekkee ne sa papa sax moko mo war nga jox ay employé ñi nga xamantene ne yar ak teggin way damit eh, jox leen cër te xam sa papa mi wala sa mag bi doon directeur yalla mën nako ko fa jëlé teg fa ñi nga xamantene tay ji mo nga doon kër sa kon mu nek lo xamantene ñi bayyi xel te ñuy traité ñi nga xamantene ñom lañuy la fekk ci entreprise donte sama papa moko mo wala sama mag eh, nañ leen jox yar ak teggin wala leen eh, anam yu rafet yo xamantene ëllëg mun nañ la servir foo xamante ne sa mag du fa nekk mu nekk loo xamante jàngat la te ñun ñëpp dañ koy subir à tout le temps au niveau des administrations wala entreprise euh, beneen séquence bi mu mel ni mbayang nag moom buy conseiller nit euh, ci jëf ju baax day mel ni moom euh, du def lu bon mbayang nekk na koo xamante ne lu muy def da ciy jëm bay da ciy dem ba jeex waaye lu nit di def lu bon moom dina la conseil jox la ay de bon conseil de bon conseil la lay ay jox tey ji moom la tontoom def ki nga xamante ne mooy ami mu ñaawlu ko ba tax muy wax leneen te moom li muy def ci suuf moo gën a doywaat waar tey jii jëkkëram bu ko yëgee ak bi ko jëkkëram may ak li nga xam ne yéene na ko ci àdduna yëpp mbayang nekk fii euh, di def loo xamante ne naka su du noonu mu mel ne rek ne jigéen nu euh, naan jigéen soppal te bul woole tey jii bu jëkkëram xalaatoon ne day indi beneen góor ci këram kon yaakaar naa du du du du neexee ni mu nekk nag benn séquence boo xamante ne moom lay wax ni euh, touché na ma man mi personnellement mais yaakaar naa ne ku ko seetaan sa war na daw waajur kenn du ko jaawale ak keneen waajur lu mu métti métti ak noo mënta mel ci àdduna moom rek moo lay fete kanam euh, tey jii maryaama tey nit ku ne day juum ci àdduna waajur dafa am àq ci doom doom dafa am àq ci waajur waaye boo jumee ba ñëw jéggalu lu munta mel pas nga ko parce que nit bu jume ba ñëw jéggelu ci mom bëgg na euh, tuub euh, jéggelu changer avis Mariama li mu def tay ji bari na xale yu yo xamne dal na len parce que dañuy nekk ci aduna euh, baña déggal seeni wajur jël aduna bi yeen ko top ñi nga xamne dañ leen di financer xaaliss ñu def lu leen neex mu dem ba dernier moment nga xamantene aduna am commencé na yàqu mu ne man amon na yaay te jamono jooju yaayam wax na def na lu ni ko ak ñi nga xamne ñoo la doon pousse à ce que nga def li ni mel lu bon tay ji ñu ñom ñoo lay bàyyi doo gis kenn ku dul yaay motax wajur kenn duko fowé wajur kenn mënu ko rawati na yaay ak dom nu mu mën tamal yaay dina ko supporter kon mariama acte bi mu def tay di euh, vraiment nek na lo xamantene acte bo xamantene man personnellement touché na ma parce que dom bu ne rek sa yaay bu la méré jappal na yow so dara ci aduna parce que mom mo la mëna bal rek pour nga mëna am li nga bu kon nañuy bàyyi xel ci suñu wajuri ak lu mu mëna nek nekk japp ne ëmb la juróom du ben fan kon nak mu nek séquence bo xamantene yaakaar naa ne moo gën a am importance sax daanaka li ma mën a wax ci euh, épisode bi jàll ñu mun ci jëlee ay leçons di xam ne yaay euh, du bañ doom mais xëy jikko ji muy ko dul neex beneen séquence bi ñu ko jeexale mu mel ni Sofia dafay commencé waaja dof xaw ma nu mu fa demee waaye Bachir nag am na lu ko doy euh, jamono ji Sofia mu ngi koy chantage waaye tamit ki nga xamante ne mooy Amar du ko bàyyee noonu ginnaaw bi nga xamante ne jot na li mooy vidéo bi luñ ci mën a jàngataat rek mu nekk loo xamante nañu benn njëriñ parce que yàlla bu la fee li nga jëm dina métti si kon nag ki nga xam ne mooy Bachir jamono ji euh, dafa bouleversé wu soit day jaama écarté ki nga xamante ne mooy Sofia te bu koy def euh, Sofia dina ko soit day dem euh, def li ko li nga xam ne moom la ko amaax def li ko amaay wax kon ni ñuy def rek nañuy bàyyi xel ci lépp loo xam ne dañ koy def si àdduna te xam ne ëllëg am na waaye lépp na jëfin bi rafet bu ëllëgee ba ko gisee sa morom doo ci rus bu mel ni ku man ndaw nag dafa ñëw pour ki nga xamante ne ne euh, mooy Abdoul waaye dafa mel ni Abdoul dafa daw waaye daw bi jaru ko ndax tey jii euh, bu yóbbu mu jàpp ci kumba ndax mbayam tôt dina ko perdre kon mu leen di jëfal mbokk yi mu nekkoon analyse yi nga xamante ne moom lañ amaloon ci euh, épisode bi daw ci 26 bi daw ci. samedi bi euh, di leen jaajëfal nag suñu kenn aussi euh, waaruñu kenn dañuy ñëw rek apporter suñuy euh, analyse yi nga xamante ne gis nañ ko te lépp lu ci nekk rek kenn ku ne war nga ci mën a jàngatee sa àdduna kenn ku te mun nga ci gis ne lii su ma ko defee dina ma jural loo xamante ne du ma ko rëccu noonu lañ fi nekkee ñu ñëpp ñoo ko bokk yéen ñu ko gën a comprendre waaye nag tout temps dañuy apporter suñuy contribution par rapport li nga xamante ne am na séquence yoo xam ne dina jural askan wi loo xamante ne kenn du ko rëccu ma leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi euh, di leen di jox di daje ba beneen jërë ngeen jëf.